والسماء والطارق وما mbokk yi jërëjëf euh, ni ngeen ko toppee ci subaak léegi euh, àndoon nañu ak yéen ci euh, koor bi nga xam ne doon nañ ko waajal ba noppi jullee ko fii ci terrain basket bu HLM Rufisque ensuite ñu ànd ak yéen gunge Euh, corps bi bi nga xam ne mooy bu Pape Bouba Diop euh, ànd ak moom romb stade Ngalandou Diop bu Rufisque romb mairie bi euh, dem ak moom dem ba dàngu seetlu nañ itam ne ay autorités yu bari teewoon nañ ci bës bi moo xam mu ay autorités religieuses moo xam également ay autorité politique ak ay autorités yoo xam ne nii ay autorités sportives lañu seetlu nañ ci ñoom Aliou Cissé gis ngeen image yi seetlu ngeen itam ñoom El Hadji Ousseynou Diouf ñoom Diomansy Kamara Henri Camara ñooñu ñëpp teewoon nañ naqar goo xam ne sax euh, fës na ci seeni kanam waaye wax dëgg yàlla dañuy delloo lépp suñu borom mbokk yi itam gis ngeen ne kenn desul waa koñ bi fii HLM Rufisque kenn desul moo tax dañ naan Pape Bouba Diop euh, l'international macha allah euh, dañuy continuer rek ak yéen daal di xool mbokk yeeg ñi nga xam ne jege nañ ko ak ñi nga ne xamoon nañ ci moom lu bari wala as ñu séq ñoom waxtaan gis ngeen ko nii sunu ginnaaw ñu ngi ci këram fii HLM mbokkam yaa ngi fi xaritam yaa ngi fi dañuy ànd ak yéen rek daal di doxantu waxtaan ak yéen. mën a wax ci bu la neexee sax ci ci tënk rek loo ñu mën a wax ci Pape Bouba Diop Pape Bouba Diop l'international. waaw Pape Bouba Diop euh, yaakaar naa moom buñ ciy wax moom duñ mës a jeexal boo xoolee bi mu génnee àdduna ba tey ñëpp a wax ku nekkaa ngi wax li nga xam ku nekkaa ngi wax li nga xam ak ah, li nga dégg ak ah, li nga mës a gis mais Pape Bouba Diop géej laa géej daal laa koy tuddee géej boo xamante ne du jeex ñun fii lañ màggee sama kër a ngi ñaari kër moo dox suñu kër ak seen kër. Pape Bouba Diop mën naa wax ni danaan fré bien vrai que du fréquentation bu tax ñu naan fréquentation mais daan na ñëw suñu kër mais grand frère am Alioune Diop mi nga xamante ne bon mës na doon ménager wala mooy ménager am ba tey moom chaque jour mu ngi suñu kër H24. Pape il est né en 1978 de de euh, des HLM de Rufisque jaar ci équipe bu ñuy wax ASC Ndefane génn dem Jaraaf mais Pape ku xool bisam ak événement bi ni mu doxee. ak li fi daje ci ay doomu aadama ak li fi daje ci nit ñu baax war ngaa xam ni du Pape football rek moo ko mayoon lii. sunu enfance ñoo ko fowandoo quoi waaw ñoo bokkaan di daan defandoo lépp fii si koñ bi macha allah waaye lépp lañuy ànd yëpp ñun xam nañ ne Pape Bouba Diop moom zéro foot depuis xale nag ba ni mu màggee kenn mën su ko dégga si dara lu ñaaw xam nga parfois di nga nekk xale du dund loo xamante ne parfois yu fi géree dikkal la mais moom. même bi ñuy def fi guerrier sax moom day effacé wu du si bokk mais nag lépp nag xam naa ne yàlla moo ko yaral boppam. tey boo doon wax si Pape Bouba Diop fii ba suba ba gannaaw suba doo doyal yow yaay wax ba sonn rek bàyyi premier jour bi ba léegi ku wax am na yu bëri yoo xam ne sax bëggul woon nit ñi di ko xam parce que yàlla mooy def dara si doomu aadama ku su nekk ak lim la may am na ñoo xam ne seen i jëf balaa ñu leen di xam ñu dem. te boo xoolee li ko yàlla defal pour nit am ko du yomb am na benn interview bu ñu ma fi defaloon keroog dama leen ne balaa ngeen di xam kan mooy Pape Bouba Diop ngeen ñëw fi bés bu ñu koy denc li ma waxoon am na boo xoolee si YouTube bi di nga gis video yooyu ñu ngi fi parce que nit boo ko boo ko jegewul mënoo ko xam. gërëm peuple Sénégal gépp tey jii francement képp koo xam ne doomu Rufisquoise rek nga Rufisque nga dëkk rek kontaan nga ndaxte tey Sénégal gépp ñoo ñëw gunge Pape buuba Diop kon loolu nga xam ne defoon na ko coupe du monde. njukkal googu mu xam ne defoon na ko ba bégal ñëpp tey yaakaar naa tey bu xool bu tëddee xoolam dina sedd tey mooy koo xam ne tey dem na dafa mel ni mi ngi si ni kanam te Pape Bouba du du maanaam suñu xol ak suñu xalaat ak suñu xam lépp du fi jóge ndax monument la fu mu nekk nii. waaw Pape Bouba nag dafa doon nit koo xamante ne mooy li ñëpp di wax rek ma répété ko rek muy discrétion nit ku humble nit mag buy am yar koo xamante ne lépp lu muy def si sutura la koy def koo xamante ne jàppale na ñëpp. waaw jàppale nañ ñëpp parce que weesul jàppale weesul ay nit nga yor sa alal di ko ja bokkax ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal gis nañ fi ñu yor alal te bokk ñu kaax ñi ñu dëkkal kon donc ñun dañuy fier si di ko wax Pape Bouba Diop nous sommes fiers de lui parce que bokk naa ñun li ko yàlla mayoon ci teraanga daal. man mbokk la kóllëre la xanaa doole sant yàlla rek julli si kilifa ñëpp muy Seydina Mohamed li Alaaji Paan at wax léegi rek mooy dëgg lettre day am timbre. téeméer bi nag mooy yonent bi joxe na dog bi bi nga xam ne ku ko ñaawal si néew yàlla mën na faa jolle jéggal ko xale yi nag war na nañoo jàng ci jikkoom parce que yàlla bi muy wax yonent bi sallallahu alayhi wax ko yaa gën ndey wax ko yaa gën bàyyi wax ko ay mbokk dana ko indaka laa laa xuluqal azim kon ku la gën moo la gën jikko maam alaaj Malick boo masaa ñëw ci moom lu la wax diw ku la jur danaan diw ku ko yar sunu borom moom bu soxlaa keneen ku bëgg da ngay ñàkk te ñun loolu lañ gis mais nag ñun suñu xol dafa sedd si moom parce que depuis dëj bi am ba léegi ah Sénégal kenn toogul ñëpp a ngi si naxar ak tiis te benn kàddu la ñëpp di bokk di wax mooy xale bu yaru la xale bu yëg nit la xale bu am cër la si doomu aadama te dëgg la xale bu am cër si doomu aadama la. mbaax laa ko xamal ak yaru am kersa si nit ñëw na ba sama kër mbaaw ñëw seet si ma. ànd ak ay rakkam yi bëgg rakkam yi nag bëgg jabaru rakkam jabaru magam yi bëgg leen ba bëgg a dee ba ñëwam bu mujj bi faat laam mii jabaru Ibou Ndione foofu la nekkoon ak moom samoon am na foog moom fukki fan ak juróom waaw loolu moom xam naa ko si moom bëgg mbokk bëgg ay rakkam bëgg ay magam. Mm, mos na ñëw kër ga ñëw seet si Ibou wax dëgg yàlla bi mu ñëwee maman la ma wax parce que ñoom seen yaay lañ ma tuddee maman rek la ma doon wax wax dëgg yàlla ba ni muy ñibbee. te buuba daal dañ koy ñaanal yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam wax dëgg yàlla relation yi mu amoon nag suñu nijaay gis nañ ko macha allah bëgg leen bëggaale ñëpp wax dëgg yàlla. daan na leen toppatoo. waaw daan na leen toppatoo kay macha allah daan na leen toppatoo bu baax a baax a baax a baax ñoom tamit ñu bëgg ko torop wax dëgg yàlla ñu ngi ñaanal daal euh, buuba yàlla bu ko cat jiitu yàlla bu ko cat jiitu. lu mu am fi la ko indi maanaam dafa demoon uti ji pour indi. nit day mbëbët lu bari si àdduna mais bu ko yàlla mayee nga gis beneen jikko du fi jeex man xam naa ñu yàlla may ñu bari ñoo xam ne bi ñu ñàkkee fekkee naa ko biñ amee fekkee naa ko kon mën naa seede te man magu buuba Diop bu mu bokkal ndey baay moo may jabar kon famille boobu mën naa si wax dara ñi ma ñiy seetaan lii bu dee day daw dinañ xam ne li may wax nii lu am la. ba buuba moom lu waaye wax si moom lu rek da nga koy xeeb maanaam. ñun ñi nga xam ne ñooy ñoo mag booy peut-être yenn booy xamuñu génération deux 2002 bi li xewoon. ñun daal nañu xam ni Pape Bouba yàlla moo def ci moom li mu def ci moom mu bégal ñu bu muy dund bi ko yàlla yóbboo it mu nekkaat ci xolu nit ñi Pape Bouba kenn du ko fàtte ci à travers le monde entier waxuma la Sénégal de waaye kenn du ko fàtte kenn du ko fàtte yàlla na ya xam sedd guy. mondial bi bi mu ñibbisee dañ doon waxtaan. ma ne ko léegi yow si idole nga daje mu ne ma ah mu ne ma coach bëggoon naa dem wax ak moom mais comme que di leen te moom mu bokkul woon ci équipe bi parce que ba fekkoon moom ma blessé Zidane dafa blessé boobu si ba doon ñaan mu dem ma koy la koy may waxante ak moom mu foog ne dama koy affaire u ñaawal ak yooyu la bàyyi ko moom kay dañ koy ñaanal suñu boroom yokk ay leeram te taas ñu ci ay barkeem borom barke la parce que li mu fi liggéey ak li mu fi def ak yar bi mu àndaloon ak teggin yi royukaay la daal. Euh, dañ ñëw comme. waa Tëngéej yëpp ni ñu amee naxar gis doom bu am daraja doom bu représenté avec fierté Rufisque génn àdduna ñu ñëw présenter suñuy condoléances à toute la nation sénégalaise particulièrement aussi à la population rufisquoise parce que c'est une grosse pour la nation ñu koy jaal dëkk bi yëpp di ko jaal euh, ay famille di ko jaal ñu mu daan àndal di ko jaal ñëpp ñi nga xamante ne jegeñ na rawatina ñu mu àndaloon ci épopée deux mille deux mille bi. joué naa nawetaan mag magam ñoo ñoo doon footballandoo. magam ban Sané ñoo doon footballandoo comprendre la defandoo nawetaan bokkan classe mag moom kon am na loo xam ne tey ji man war am naa pour taxaw wax si Pape Bouba am naa pour témoin ko ndax xale la boo xam ne xale bu yarul la. man dama bokk ci daayira bu ñuy wax soppay da baax daayira boobu daara la ñun daara lañ ko tuddee du daayira daara la mais chaque année bu ñu daan dem gàmmu. Pape Bouba Diop da siy participer bu baax a baax a baax boo jógee ci loolu chaque année bu ñëwee weeru koor jot na kër gu nekk dina fu dugal saaku ceeb diwlin 5 litres ak xaalis pour borom kër gi te sutura bi ñuy wax nag naan dafa dafa doon nit koo xamante ne dafa discret loolu mu ko daan def guddi gi guddi gi la ko daan def loolu guddi gi la ko daan def. nan la ko daan defee guddi gi. guddi gi ah, waa ay frère am ñoo daan ñëw di dugg kër par kër di joxe avancé. waaw dañ daan joxe ceeb diwlin suukar ak enveloppe boo xamante ne man sax xaw ma ñaata la enveloppe boo xam ne day ñëw rek jox ko kilifa kër gi nekk am mu complété ration weeru koor bi te weer bi mu ko daan defee baax na période bi mu ko daan defee baax na te da ko daan def dans la discrétion parce que guddi gi lañ ko daan distribuer camion bi day daw taxaw daw taxaw frère mi yenn dugal ci kër gi enchaîné dem seen yoon. xale yi xam ni ñi ngi dugg ci du jeex. te Pape bàyyi woon na xel Pape bàyyi woon na xel bu baax bis bii ko dal ne dina ko dal ndax al mawtu yaati baxtatan dee googu ñuy wax yàlla nee na ku mu dal dalaa bett kon prévenir vaut mieux que li muy mënoon a fubal doon international adduna yëpp xamoon ko mu sagaloon Tëngéej ak Sénégal ak adduna bàyyi woon na xel ne bis bii dina mas a ñëw mu ànd ak nit ñi ci jikkoom ci yar ak teggin ak jub ak jaamu yàlla ndax lu nit mën a am ci adduna nag di julit ñu tuddale ko te bokkoo ci ñuy tudd ne jaamu yàlla nga ñu ngi lay ndax HLM jàkk ji il a fi la daan jullee bi mu demee ba yàlla may ko ay teraanga jël na alalam dugal ko ci jàkk ji bu wéy jëf tantaam la moo sama doom ay doomi bàyyi lañu ay doomi bàyyi lañu mais Pape Bouba Diop dafa baax ndax awa saw mi sama xaritu benn bekkal la di wax toujours si lu baax si moom jël rakkam uuf ko mu nekk moom ci kër gi siisu ko defu ko dara ñu bokk ndey bokk baay muy jëli teraanga rek di def si ñoom fa mu jëm yàlla na ko gën a fi mu jóge si daraja yonent bi di def ci réew mi mu dëkk lu baax may dégg lu baax ci moom vraiment nit ku baax la ndax sama xarit boo xam ne enfance la bu toogee ne dafa baax kon Bouba Diop ku baax lañu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjanay si ndax kullu nafsin saayatil mawtu kenn bu ñam dund di nga ñam dee ndegam naa mu a dem fii kenn du fi des. nag dañ koy ñaanal quoi yàlla. may ko uh, um, àjjuna àjjuna àjjuna àjjuna fi daaw yu kawe kawe kawe uh, moom baax na baax goo xamante ne amaan sax ñun dootuñu ko ñaanal parce que ñun suñu xol sedd na si moom te ku dem almeere tey di nga xam ne ne Pape Bouba ñun suñu xel dal na ci moom parce que moom wane na ko te da ko mérito nag da ko benn da ko si ñu mu dëkkandool mais benn da si l'an 2002 euh, euh, li mu li mu def dëgg-dëgg loolu rek dafa sedd xol. moom tey ay doomam ay doomam ay doomam Bouba Diop liggéeyal na leen loo xam ne mënuñu jël yoonu bon parce que bu ñu xalaatee li ñu wax si seen papa ñu dégg ko bu ñu naroon jël mauvaise semence sax Bouba Diop teg na leen si condition yu baax waaw defar na seen seen defar na ginnaawam te bi mu fi nekkee tamit def fi dara lu ñaaw. Pape Bouba euh, bëccëgal nañu guddeel nañu euh, naajal nañu keral nañu. ci naka ci naka. waa ci maanaam mbégte. ndax yaakaar naa ne 2002 moom suñu papa yi fecce nañ suñu yaay yi fecce nañ ñun fecce nañ paa bu daanul fecc sax 2002 fecce nga waaw di ko ñaanal fa mu jëm euh, suñu borom ak euh, mag ñu baax ñu fi jógee teeru ko teral ko dem moom ñu baax rek a tax ñu ñëw daal si ko mbokk mi ak mbokki Tëngéej di kontaan ci yéen liggéey bi ngeen def am na solo lool kenn ku ne xam na waaye jamono ji xat na lool waaye seen mbaax ak xam ni Pape Bouba ku baax rek a tax ngeen ñëw fii feeñal seen bés ci liggéey bi kon ñoo ngi leen ñaaral liggéey bi yàlla na jëm kanam télé bi yokk bu baax a baax. njabootam yàlla na ci yàlla teg barke teg ci loxoom Pape Bouba buñ nee wax lu baax li muy def ci famille am ndax nee nañ buñ nee diwa baax dañ ni mbokk yi laaj leen mbokk yi waaye te témoignage yi ma fa jëlewaat léegi ci mbokk yi ak ñu ko xam dama gën a jël Pape Bouba tëj ko si sama biir xol yàlla na xippee àjjana ak mbooloom néew jullit yëpp. kontaan nañ bu baax ci yéen nga xam ni yéenay jël témoignage yi aussi jërëjëf. parce que boo xoolee tey bésu Pape boobu bi bu fekkee ne yaa ngi nga xam ne kii ku yàlla baaxale woon bésam boobu boo ko boo gisee bésu bi nga xam ne kii ku yàlla baaxale woon man dama sax dama toog waxtaan ak gars yi may leen booy bi booy bi wàllu yu la dafa ñëwoon def euh, temps rek à moment te dem na te sans bruit nit nit trompette boo xoolee Pape boobu loolu la def. parce que li mu feebar feebar ñu ko xamoon bariwul entourage am peut-être ak man mii ak parce que parce que parce que dama xawoon jege. naxar bi ñëpp ko bokk ñun ñoo bokk ak moom waaye naxar bi ñëpp ko bokk ñu ngi koy ñaanal fu mu tëdd yàlla na suuf sedd ci kawam àddina bi gërëm nañ ko ay mbokkam gërëm nañ ko ci teeyam ci baaxam ci discrétion yàlla na ko suuf sedd ci kawam bu baax a baax a baax yéen tam ñu di leen gërëm di leen sant bu baax. Sénégal dañu war a roy si Pape bu Diop surtout les jeunes ñii di dugg si gaal yi ñii di daw Pape Bouba Diop ba muy jógee dakaar jugee Tëngéej gi di dem Dakar chaque jour di dem entrainement euh, jaraaf danaan dugg si oto yi muy am embouteillage muy jóg 5 heures di matin pour mun a assister pour ñëw def lii tey ji am nañ péage am nañ lépp te booy ñoo gën a ñàkk yom affaire bi jom la nit mun na dund téeméeri at te amaloo sa askan njariñ amaloo sa sa sa sa sa penc njariñ nit dund at yu néew ba keroog yomal xiyam duñ ko fàtte Pape Bouba Diop kenn du ko fàtte